asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci leeral TV ak yéen ñi ñuy faral di suivre ci leeral point alors tey euh, ñu ngi fii euh, Thiès comme ni ngeen ko xamee voilà tey ku wax Thiès wax ci taarixu dëkk bi waaye itam wax ci culture euh, boo waxee culture li fi gën a fës moo di théâtre donc moo tax ñu fi dalal ci entretien bi le Cheikh Seck ñu gën ko xam ci acteur comédien mu nekk ku kenn ku ku kenn dul présenté en tout cas ci li nga xam ne moo di paysage médiatique surtout ci wàllum théâtre moom la ñuy dalal tey ji di ko bàyyi mu nuyu mbokku téléspectateur u Leral yi Euh, asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di nuyu waa internet yëpp. Euh, di kontaan ci seen ñëw fii Thiès di leen wax euh, soyez les bienvenus. alors Thiès nekk ville théâtrale parce que euh, ku wax Thiès wax jànqeen ku wax Thiès wax soleil levant naka noonu itam gis nañ nouvelle génération bi mooy ñoom Combé euh, ak ñoom ma ñu ko ñu mel alors tey jii lu tax euh, maanaam Thiès am tey jii benn flair boobu noonu maanaam ci wàllum théâtre waa parce que Thiès ci histo dans l'histoire boo xoolee démbam la région de Thiès n'a jamais en reste n'a jamais été en reste par rapport à la culture parce que boo seetloo ci ay jamono il existait ce qu'on appelle la semaine nationale sénégalaise semaine nationale semaine nationale dëkk yëpp ñoo fa daan région yi ñoo fa daan daje di joŋante mais boo seetloo Thiès ki ko daan raw rek moo daan Louga te booba suñuy aînés ñoo daan représenté euh, dëkk bi ci wàllu euh, théâtre ci wàllu culture en général donc loolu dafa yàgg donc creuser bi Thiès nekk sur le plan culturel lu yàgg la xale yi ñu dañoo ñëw jouer suñu partition ba tey ñu ngi koy jouer di gunge xale yi xale yi aussi ñëw màgg wane seen man man ci wàllu art man booba maa ngi liggéey bibliothèque pédagogique en tant en tant que fonctionnaire foofu moo nekk suñu lieu de répétition booba ci ensuite bon parce que tout est parti de wàllu waa àllaaxira le revenant j'ai inter... j'ai eu la chance d'interpréter le rôle principal Bakar mes relations avec le réalisateur Amadou Fall moo indi lépp parce que c'est à partir de Walwa Alaxira ci la ma laaj ni ma métiers xanaa amul troupe ma ne ko si et là-bas j'ai j'ai menti booba il n'existait pas de troupe bu boo xamante ni représentative mu ne ma mais indil ma benn scénario je am ai amené un scénario qui tuddee Firange c'était la première prestation de Diankhène pour nu jouer pour nu jouer firange sama moto laa yor di def port à porte pour jël les éléments donc c'était pas facile mais ci biir wàll waa àllaaxira bi ñu koy jouer am na benn scène boo xam ne boo ko seetloo seen bolot la réalisateur bi ni ma seen bolot bi damaa bëggoon daal moo animé quoi neex ma ne ko ma ne sama xel tey de tey de yàllaa ngi bëgg a ñëw nag ma ne ko scène bi boo bëggee mu neex am na ay boy yu nekk Thiès mën nañ ko animé mënuma fa ab ah bon mu ne ko wuy ci laa woo maam Cheikhu téléphone woo Moussa Seck woo Cheikh Ndiaye woo Nguri woo Ousmane Kane ni leen ñëw leen dakaar am na am na occasion bi ñu ñëwee Amadou Fall ni ma mais ñii je ne peux pas parce que amuñu cachet ma ne ko man maa leen di fay ci sama cachet xam nga loolu war ma sama yitte ñu xam maam Cheikh am na talent ñu xam ni Nguri am na talent. noo xam ne Ousmane Kane am na talent je les ai waa àllaaxira tout est parti de là nag c'est là c'est ça qui a fait la provoqué la naissance de Diankhène. bu ñu waxee Thiès na Diankhène bu ñu waxee Thiès également wax Soleil Levant maanaam tey jii ni ngeen jógee euh, ci li nga xam ne maanaam transmission de génération en génération tey ñoom Kombe maanaam frère boobu dañ ko këf ci yéen maanaam euh, am na lu ñu jàngat ci yeen ba tey jii ñoom aussi ñu am benn représentativité ci li nga xam ne moo di wàllum théâtre. gis nga mbir. li naanu boo iñaanee sa ndono sa deewi ñaaw wala moo ko wax ñu un artiste du retraité ci administration man retraité na mais ci wàllu art retraité wu ba tey maa ngi maa ngi joué ba tey maa ngi maa ngi at maa ngi accompagné xale yi mais mënoo lekk sa démb lekk sa tey léeg-léeg xale yi ñoo fi nekk di doxal leneen loo xamante ni si seen noon noonu lañ ko bëggee ñoom ñu leen di accompagner den félicité man tant que maa ngi leen di gis ñoom nuy dem may bëgg parce que loolu laa musa ñaan sama borom xale yi raw nu te bañ sonn ñun ñu nu sonne woon ci aar te yàlla def nañu ko quand je vois maam Cheikhou Serigne Ngagne quand je aada Ada et Combé la la la la toute la, la génération présente mais ça me fait un grand plaisir man parce que ñooñu ñëpp damaa xam ni am naa fu ma jaar ak ñoom. damay wax xale yi ni daan leen man li ma daj ci aar ñaanuma yàlla yéen ngeen daj ko parce que on a souffert parce que on a galéré on a vécu des très difficiles te te loola kat néewul suñu métier parce que ñun suñu métier nous sommes des enseignants de profession jàngalekat la doon te jamono yooyu ah, voilà. tu vois très bien kon style jàngale njàngale mi day feeñ ci samay bind day feeñ ci bon ci comportement bi donc euh, mais dañ ko bëggoon nous sommes nous sommes des passionnés de théâtre loolu moo ci bàyyi woon demu nu benn école des arts di ko jàngale di fa di ko jàngi nous sommes issus si je peux dire du théâtre populaire donc xale yi nga gisit ñoom ñëpp ñun par exemple moment boobu c'était difficile looloo ma dugaloon ba ma ba ma créer la troupe jànqeen ci ay moments yu difficile te booba leen dong la woon man j'avais la possibilité de temps en temps di génn télévision mais xale yi amuñu woon boobu chance te xam naa ni il y a quelque chose qui bu nekk ci ñoom il y a un bu nekk ci ñoom mais xamuñu fu ñu koy génnee sa am dafa ma metti woon nag ku ci mel ni jamono yooyu maam Cheikhou boobu tuddugul saa neex ku mel ni ngur yi ñoom mu Seck ah ñoom euh, ñoom ñoom it ñoom it ñoom boobu ñoom ñëpp xam naa ni talent mu ngi ci ñoom. alors am na sa benn pièce pièce de théâtre boo xam ne moo marqué pratiquement suñu enfance ñun ñëpp euh, mën naa ne mooy mooy Firange alors tey jii mën nga revenir un peu ci li nga xam ne moo di pièce de théâtre boobu nga xam ne vraiment sa euh, continue voilà de faire tache d'huile en Afrique particulièrement Baye Cheikh sa tànk ci biti. ma toj tax nga dee fiiraange bi ma koy bind c'était pour montrer que ni fiir am na ndax benn benn benn xam-xam boroom xam-xam dafa nii ñépp fiir bu doon fiiraange am néeg la ñu tabax ko ñu def ko ci diggu diggu diggu dëkk bi ñépp tëdd fa ña ci biddanti ñoo dof donc fiiraange te fiiraange loolu la woon pour montrer au gens que ni euh, fiir am na waaye nag warul yegg ci dof parce que ñàngaleem aussi bu réy ngi ci ndax dama ko jox tax bi ni ko gardel ma ko quarante jour bis bu tojee ma dee te quarante jours yi bu matee aussi mën naa juru xéewal ci kër gi ma takk ñaareel mu ne ma sa tax ba dama koy toj moom fàtte na ni tax bi quarante jours yi day am day am am xéewal mais li xew la bëgg a éradiquer mais man gëm naa ni est-ce que dina ko toj à la limite est-ce que dina dem dina dem ba toj ko ma ne ko daba tax bi amagul sax vingt jours te bu tojee ma damay dee mu ne ma yow daal da ngay aaya ji ci ñaareel bi soo génn kër gi sa tànk ci biti ma toj tax ma dee ma ne ko mbari mais daba ñemewoo ko waaye j'ai avancé mu ne ma bàyyi Cheikh mu ne mu ne ko tay la première réflexion le premier geste bi mu def qu'est-ce a dafa jàpp bopp ça veut dire nit balaa def na jiital réflexion parce que tu fais des erreurs ba pare tiis bopp ni def naa ñomme ma ne ko tax bii dama la doon nax rek denn séeréer bu nekk laalaan moo ma ko mayoon dama doon xool foo tollu ci fiiraange li mesure la woon tax ba mesure la woon est-ce que nit war naa mën a yegg ci fiiraange ba def loo xam ne jaaduwul te gis nga à chaque fois à travers les faits divers fekk sa wujj di nelaw di sieste nga dem tàngal diwlin ba mu baax nga fekk muy nes muy sieste nga bàyyi nga tromper la vigilance de tout le monde ñëw ni ko ko soteet ba mu am quatrième degré pourquoi parce que bokk ngeen bokk alaaji bi ci kër gi yéen woo ko wàllam te mu foog mu jël wàllam bokk na it ñàkk gëm yàlla il faut savoir partager ñu jóge ci loolu ñëw ci li nga xam ne moo di théâtre parce que voilà gis nañ ne am na benn changement alors tey ji yow ba jàngat ngay def ci lu nu mel parce que tey ji yéen ni ngeen doon doxalee ci wàllum théâtre ak génération bi léegi ñu ngi doxalee est-ce que am na tey ji benn différence boo xam ne yow nata nga ko ci bon dimb ñun dañoo miinoon la scène théâtrale maanaam théâtre waxuma la téléfilm de théâtre waaw ñun dañ ko miinoon avant bi ñu koy def li ñu ko def ñun chaque quinze jours ñu ngi woon mairie di théâtre compétition entre les ASC koñ bi organiser théâtre ñu jël ay bâche wërale ay sàkket di théâtre théâtre boobu dañ ci jaar sonn ca lool mais ce théâtre la a disparu à cause de ces téléfilms léegi xam lu xew yow daal da jekk yu daal buñ la filmé woon da nga bien ci belle gaa ñu teg la filmer la wax la li ngay wax di la filmer kër muy baax mais le théâtre sin scène amul lool. dafa disparaître. copré man mii sax tey jii may wax nii xeex boobu ci laa ne. ba actuellement nii ça fait six mois maa ngi répété une pièce boo xamante ne du série théâtre la maa ngi ko tuddee héritage sans testament entièrement joué en français c' est une pièce de théâtre laa la wax incha allah le 26 décembre. dans le cadre du festival Thiès Rire ci lañ koy jëkk jouer incha allah xam nga mbir mën nga ko bëgg muy un don ci yow dool jaar ci école nationale d'art dramatique tu es du théâtre populaire mais soo bëggee perfectionné wu da ngay dem jàngi ko li nga jàng ak li ngay improviser bokkul l'improvisation dans le théâtre kenn du ko jàng improvisation luy ñëw la doo ko préparer mais les normes du théâtre fi nga war a taxaw ni nga war a waxe fi nga war a yéege fi war a wàcce mais loolu sëñ bi boo ko jàngul mënoo koo def moo tax euh, man bi ma ko bëggee ab dama ko mujj jàng dama ko jàngi dem bi def ay stage donc je ça ne s'improvise pas effectivement donc xale yi euh, loolu itam bu nekkee te ni loolu nekk na ci ñoom bëgg nañu aar bi particulièrement la théâtre nan ñu jàngi leen normes Thiès nag soo gisee sax mu toll fi mu toll ci wàllu théâtre il y a beaucoup de formation à Thiès sincèrement xale yi li ñuy formé wu dafa bari fii moo tax fois fi par rapport ñun ak yeneen régions yi nu raw leen ensuite comme au départ de ta question Thiès est un creuset dafa yàgg am ay ay ndaanaan mais nag ndaanaan ndaanaan da ngay jàngi pour ko teg ko ci yoon. lépp mu nga ca mbind ma Euh, tout est parti du scénario la nga bind moom la comédien bi bind ensuite tout dépend du ce que veut le réalisateur ce que mën ngaa bind li la neex li nga sentir nga bàyyi waale xel sa culture nga bàyyi waale xel sa éducation ñun duñu ay tubaab man bi ma demee France pour la première fois ànd ak sama benn copain ni doxantu benn tàkkusaan tubaab yi moroom bee benn couple ñuy fóonante ci taatu garab yi ñuy fóonante ci place publique yi damay gestu ba daanu mu ne ma seet te nga bàyyi yi nga ñii ñii nga ma ne waa ñii li ñu def nii mu ne ma ñii lii mooy seen tradition effectivement man maay taxaw di xool tubaab yi fonante mais yow demal Sandaga ànd ak sab gel di fóonante ci biir dañ naan kii dof la noonu nu ko mais tey jii boo demoon yow mii même sax yow boo demoon ba nekkoon sénégalais takk benn tubaab dem ba biir France ngay furanteeg moom bu la tubaab rombee danay xam ne yaa ngi def loo moomut. Eh, wàcc nga sa ànd donc a travers les scénarios à travers les interprétations nañ ci bàyyi xel suñuy valeurs et les valeurs les la am na loo xam ñun ñoo comme moom war nañ ko mën a jaay ñi ko ñi ko amul am na loo xam ne ça ne nous appartient pas moomuñu ko. il faut pas singer excuse-moi du terme donc loolu nañ ko bàyyi xel ci suñu production am na production man par exemple je donne un exemple euh, le khalife général Serigne Mansour Sy dal na yàlla yokk leeram sama sëriñ la woon mais sama xarit la woon mais Serigne Mansour était très très attentif par rapport ak le théâtre ma daan ñëw sa Tivaouane mu ne ah saa waa jaa ngi yow de démb seetaan naa sa benn théâtre mais loolu bu amoon lu koy gêner mais sëñ Mansour di ko seetaan yal na yàlla yokk leeram Pape Malick Sy Al Malick Pape Malick si bu Serigne Cheikh bu sëñ Babacar Sy yal na yàlla yokk leeram wallahi le dernier vendredi qu'il m'a ci mois de Ramadan bi il regardait une de mes pièces qui s'appelait ancien combattant mu ne ma incha allah le mois prochain dinaa la recevoir ndax jot nañu gisam ndax sama xarit la woon avant ci la génn àdduna ça veut il regarde les dramatiques ni ma voilà ton ma ne ko amul ma c'est c'est la meilleure production que tu as faite Pape Malick Sy ça veut dire quoi nañuy tourner di jouer loo xamante ni bu ñu toogee ak suñuy doom duñ leen frustré on peut les regarder en même temps que les enfants. ñu ngi ci suñu njeexintalu entretien ban message ngay euh, jox ñi nga xam ne moo di ndaw ñi surtout ñu yëngu ci wàllum théâtre ak série euh, télévisée yi. léegi daal li ñu bëgg moo di am na suñu écrivains yi am nañu ay livres yu bind. nañu ko adapté. comme la collégienne Maroc mais walaay di teg ko sur sur la scène. mais boobaa nag du question ay téléfilm de da ngay man baa nga mënoo ndax nit ñi dañuy toog nga tari xam ni ngay taxawee xam ni ngay waxee. waaw déedéet donc théâtre boobu il faut que mu renaître mais malheureusement les scènes de théâtre tendent à dis à disparaître amatuñu léegi mais moom laa lay wax. ni Sénégal manqué euh, terrain football noonu la manqué terrain de théâtre <laughs> parce que amatuñu fu ñuy théâtre parce que on a démoli léegi moo tax téléfilm yi bari mais téléfilm yi aussi fi mu ñëwee baax na parce que novelas yi ñoo fi tegoon tànk mais léegi boo demee à travers les chaînes de télévision il y a combien de séries bientôt bientôt biento bientôt mais c'est bien. télévision yi nañ jàppale artistes yi mais nit ñaa ñu nit ñi ñu ngi góor góorgóorlu yaa ngi gis waa Soleil Levant ñu ngi rey seen bopp di jéem a jox nit ñi lu neex askan wi boo Serigne Ngagne avec Mbetteel mu ngi joxe loo xamante ni bëgg lu neex askan wi man mii produire naa benn série bu tudd Khadi Buzz bientôt mu daw di wut lu gën a neex askan wi mais dañ loo jàppalewul télévision yi boo demee da ngay séddoog ñoom boo wutee sponsor ñun la soixante quarante te xamuñu te ñoo la gën a xam production ni mu toll en matière de dépense nan nu jàppale nan nu jàppale on fait de notre mieux pour servir le Sénégal mais dañ ciy wét te production dafa metti ndax théâtre bi léegi la attention ah le théâtre fa mu néewoon maanaam le les téléfilms fa mu nekkoon jóge na fa actuellement nii actuellement nit ñi léegi boo bëggee nu seetaan la nga def buzz comme on dit mais tu leur présentes un décor bu wóor tu leur présentes des artistes yi ko yoo xamante ni ils interprètent très bien leur rôle tu leur présentes un scénario digne de son nom léegi actuellement la qualité fait la différence c'est pas n'importe quoi que la nit ñi di consommer te loolu pour nga am ko ci débourse des millions donc cela veut dire que le théâtre actuellement les téléfilms dañoo gagné dafa yéeg la barre hein donc euh, ci kàttanu yàlla bon là je je, je les félicite je félicite Soleil Levant je félicite Serigne Ngagne je félicite euh, ñiy def infidèles yi ñiy def karma je les félicite parce que ñoom ñëpp ku ci am victoire suñu victoire la parce que on s'est battu pendant des années pour que mu yegg si foofu te actuellement nii sincèrement Novelas il est en train de prendre ses bagages parce que les gens proposent autre chose alors en contrepartie ce qu'on doit proposer au public nañ koy càmbar di ko xool na nekk loo xam ne lu am solo la bon euh, man daal euh, li may euh, li may terminer bu lañ ko dagg nag ni may terminer man dama nekk ci projet te fii laa ko mën a waxee nag bu ngeen ko daggee nag ba yoon ne su ma wooyee damay lànk ndax nag kuy xalamu di ca jaayo du ngeen ko dawal du ngeen ko dagg je prépare le festival Thiès Rire sa deuxième édition Thiès Rire Thiès Rire boobu ci la ñuy jouer une pièce en français qui s'appelle Héritage sans testament ñeenti nit ñoo ko jouer tout en français je veux révolution j'ai l'intention de révolutionner parce qu'on a fait trop de théâtre en wolof je voudrais que na suñu théâtre soit stable et puis mu ànd ak suñuy coutume ak suñuy tradition festival boobu yéen waa leeral net sax invité naa leen ci c'est le cinq 25 26 à ci c'est deuxième édition lii ma wax na ba ko daggee man dinaa leen suivre am naa seen numéro téléphone seen ma woowee damay lank ndax bu amee sa mbaam da koy war kuy xalamu wala wasalaam je vous félicite di seli féliciter waa Leral point net parce que vous vous jouez un rôle très important dans la société yéen itam vous avez le même rôle que nous parce que lu ngeen bëgg jaay mu jar lu ngeen bëgg a wone mu wan lu ngeen bëgg mu siiw mu siiw mais yéen itam am ngeen pas de responsabilité ci société bi est-ce que war ngeen siiw lu warul siiw mais nag buzz moom bu ngeen ko bëggee léeg ngi def loo xamante ne da ngay gëm rek donc je vous félicite parce que seen liggéey yéen a ngi koy def d'une manière très très bien mm-hmm. et puis les médias parce que fii ngeen toll tey nii ci wàllu communication ñun suñuy jamono amuñu ko woon mm-hmm. il y unique télévision mm-hmm. mais actuellement ni type jamono ngi ñëw sax télévision day xewi de lii mooy xew. loo bëgg mu loo bëgg mu am loo bëgg mu nekk loo bëgg mu xam ko fii ngay jaar donc yéen itam ñu ngi leen di souhaiter bon vent yàlla defal leen jàmm euh, on est là aussi pour vous appuyer pour vous soutenir pour vous accompagner dans ce que nous pouvons faire ak suñu vision parce que benn bind ko dafa ni une vision qui ne s'accompagne pas d'acte n'est qu'un rêve waaye une vision suivie d'action peut changer le monde te sunu vision ak yéen benn la on veut changer le monde merci beaucoup. mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan ci Leral TV si seen euh, grand entretien alors gis ngeen ñu ngi doon euh, waxtaan ak ki nga xam ne moo di Cheikh Seck ñu nekk mu nekk benn artiste comédien boo xam ne kenn du ko présenté ci à l' échelle nationale euh, ak internationale jot nañu waxtaan li nga xam ne moo di carrière am jox nañu jot nañu waxtaan itam ci li nga xam ne moo di pièce de théâtre boobu di Firange en tout cas mu indi ci vraiment benn éclaircissement naka noonu it voilà waxe wax njàngat bi nga xam ne mën nañ ko ci jëlee ñun ñëpp naka noonu leneen ci li nga xam ne moo di série sénégalaise yu bees yi ak tey ji yenn valeurs yi nga xam ne dañ ko ci war di incarner lu ci bëri waxtaanee nañ ko en tout cas ci seen biir euh, grand entretien lu bari di ngeen ko ci mën a jàngat ci li nga xam ne moo di artiste bi nga xam ne moo di Cheikh Seck mu nekk kenn ku kenn dul présenté en tout cas ci paysage médiatique ñu ngi leen di jox dig daje ak beneen entretien ak beneen artiste incha allah